defal ndimbalam te sàmmal nu di ziar ñëpp ci bis bi xaaj Babacar. amiin oustaz jërëjëf yendoo ak jàmm. RFM matin RFM émission bi yee waa Sénégal. RFM euh, euh, sunu gan Matar Seye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. ñu ngi lay dalal jàmm di nuyu Georges Matar Seye yow yaay secrétaire général réew mi di parti Idrissa Seck euh, yii di moomu nag indi na coow ak werante ci dëkk bi démb ak léegi bi jële kàddu ca kees ci kanamu Macky Sall. Euh, mel ni da koo cax ne ko bul def troisième mandat loolu la. waaw euh, Babacar maa lay nuyu di nuyu suñu auditeurs yi ñuy seetaan di nuyu di yi ñu auditeurs yi ñuy déglu di nuyu Georges ak euh, militant parti bi ak sénégalais yëpp. di beral nuyoo sama quelques jeunes frères yoo xam ne demande woon nañ ma ne boo ñëwee rek defal ma dédicace muy ñoom Mbagnick maane ak Mbagnick Ndiaye Khali Diouf. donc di ñëwaat si li nga wax muy je pense que démb président dafa wax ak président Macky Sall won ko ne vraiment bilan bi bilan bu jaar yoon la wax en tant que grand frère et ñaanal ko ñaanal ko euh, kii ko won ko yoon bi nga xam ne moo war a tax incha allah li gën ci Sénégal gën si moom gën si ñun ñëpp président Macky Sall def ko. li gën ci moom gën ci Sénégal troisième mandat bi ndax looloo indi coow ba nit ñi naan sax euh, jamono ji euh, lendemain ëllëg Sénégal leerut bu fekkee ne Macky Sall déposé na troisième euh, candidature. est-ce que li gën ci Sénégal moom mooy mu bañ a wuutu euh, mu mën a yootu ñett ñettilu mandat boobu ci euh, kaddu yi Idrissa Seck bu ñu jàppee li mu wax. waaw xam nga de euh, du mbirum troisième mandat lañ doon wax dem. ah dem demin gu rafet kay moom mooy. loolu waxul dégguma si président mu ne dem demun gu rafet. président Macky Sall dafa nekk si trajectoire dafa nekk si trajectoire président de la république. am yoon bu mu teg Sénégal si yoon boobu si le président Idrissa Seck doon wax wax si bilan bu mu def wax ne liñ doon xaar si moom moom magam mag bu doon wax ak bu nga xam ne 1998 ba ñëpp jógee PDS cadre yi moo ko jëloon wóolu ko teg ko si bopp cadre yi tey jii des vingt cinq ans plus tard décision boobu mu jëloon amulum si rëccu ndaxte gis na rakam boobu am na parcours bu exceptionnel nekk président de la république am bilan bu exceptionnel. rakk jum ne woon du ko mës a yilif waaye ah loolu sax wax ji weesu na bisimilah ay ca waaw ah. donc rakk joo xam ne vraiment il l'a retrouvé et que yaakaar bu mu amoon si moom bu mu ko doon jox cadre PDS yi parcours bi président Macky Sall am boobu ba léegi wane na ne que c'était pas une erreur donc si loolu lañ doon wax wax si njariñu Thiès parce que président démb Idriss Seck wax na si problème yi nga xam ne Thiès jàkkoon sol na ko muy problème yi di mënta xëy démb dinu cax nga bëgg a yow itam ñëw fii di eh, di mel ni kuy layam layami xam nga xam nga euh, Sénégal dañoo bëgg politique politicienne boo waxee lu am njëriñ muy problème inondation yi am yi Thiès di di jànkoonteel te ñu mu proposé ne defoon na périmétral nord et que donc war nañu def périmétral sud pour protéger Thiès wax ci problème dune des Niayes wax ci euh, mi euh, entreprise minière yi problème yi ñu indi dans la région de Thiès wax ci plage yu ñu restauré Saly loolu yëpp ñu wax ci nit ñi bëgg nekk sur un point di ci di ci werante nit ñi am nañ ci droit werante am nañ ci droit werante mais ñun suñuy kilifa lu ñu wax léegi xanaa ñu laaj ñu laaj leen ko léegi ñu laaj leen ko yéen waa réew mi directement est-ce que ànd ngeen ci Macky Sall yóotuwaat beneen mandat ci boppu réewum Sénégal. waa ñun waa réew mi xam nga politique sa kilifa yaa koy tànnal sa bopp kon ñun waa réew ñoo def congrès jël suñu kilifteef jox ko président Idrissa Seck président Idrissa Seck ànd ak Macky Sall si Benno Bokk Yaakaar ci alliance donc ñun dañu leen di déglu. di xaar lan la ñuy wax te ñoom waxaguñu mbirum candidature waxaguñu mbirum troisième mandat donc ñu ngi leen di déglu ñooñu nga xam ne ñooñu suñu kilifa si politique. est-ce que seen kàddu démb mooy seen kàddu tey ci limitation des mandats. Euh, président Idrissa Seck dafa am mook Ablaye Wade parcours politique boo xam ne dañu ko xeex Sénégal pour saxal démocratie fii ci Sénégal ci lo trajectoire boobu ñu nekkoon ba ñuy ab Abdou Diouf muy une démocratie apaisée. un libéralisme boo xam ne ça va au aux Sénégalais d'exprimer leur talent si parcours boobu lañ président Idrissa Seck nekk ba léegi si loolu objectif boobu lañ nekk donc fi ñu toll nii lii ñu taxoon ànd ak président Macky Sall muy jublu si jafe-jafe yi askan yu nekk pour ñu loolu mooy urgence bi te si loolu la ñu nekk waxtu candidature waxtu troisième mandat bés bu jotee incha allah président su waxee. dinañ si oui mais waxuma troisième can euh, euh, troisième candidature ci limitation conviction bi ngeen amoon ci limitation des mandats est-ce que conviction boobu. conviction boobu la ñu am ba léegi mandat yi constitution Sénégal moo ko limité à de deux mandats loolu kenn kenn werante wu ko. léegi Macky mi ngi ci un wala mi ngi ci deux. fii ñu toll nii. waaw loolu conseil constitutionnel moo koy wax. loo ci xam yow. ah man du ma juriste man mathématicien la. <laughs> donc conseil constitutionnel. mais justement. bu fekkee ne war ngaa mën a calculer nag. waaw un la wala deux ba trois léegi balaa ngay wax mandat day fekk nit ki def demande te ba léegi ñu président Macky Sall mu wax ne damay déposer bu defee demande conseil constitutionnel moo koy valider te li conseil constitutionnel validé si la Sénégalais di tëb. man de damay ragal ne bii di waxee démb ba xel yi xaw a am jiixi jaaxa diggante bi am na lu fi xew ba tey nga xëy Euh, dellu ginnaaw euh, ci kàddu yi nga xam ni yëkkati woon na ko démb te euh, mel ni leer na naññ ne Macky bul def troisième mandat. xam nga wax moom dangay wax da ngay xalaat da wax li nga xalaat nit kiy dégg am lu mu dégg keneen gi tamit am lu mu bëgg dégg donc noonu la mbir bi demee ku nekk yaay xool li nga si bëgg dégg waaye président Idrissa Seck ak président Macky Sall je pense que amuñu réeroo si. fi ñu jëm non démb Idi dafa dox dëgg ci maayinu Macky Sall. waa yaa ko gisee noonu mooy li may wax rek wax moom dina am koo xam ne nii nga koy déggee wala boog noonu nga ko bëgg déggee am keneen koo xam ne ku mel ni Mbacke Seck suñu coordonnateur Dakar la ko intéressé si wax ji mooy mbirum environnement ba ñuy waxte moom mu ciy xeex ay at donc ku nekk yaay xool li nga ci li la ci intéressé ak na nga ko bëgg déggee nga jëlee ko noonu donc je pense que c'est pas le plus important dans dans ce que le président a dit Mhm. Euh, candidature yi euh, déclaration de candidature yu bëri nañ trop ci langu ba politique bi euh, yéen waa réew mi dégguñu leen nam ngeen seen njiit li nekk njiitu réewam. ba léegi suñu njiit suñu njiit daf ñu jox feuille de route feuille boobu daf ma woo ba këram mu jox ma ko dama tegalal feuille de route bi militant yi point bu si njëkk mooy recensement général des militants de réew séddale nañu fiche bi suñu responsable yi dans les bases et dans les quarante six départements du Sénégal et les huit départements de la diaspora ñoo ngi def recensement bi deuxième point bi mooy suñuy vice président yi dañ dinañ entamer tournée nationale pour préparer rencontre yi nga xam ne moom président Idrissa Seck war na ko def ak militants yi bu ñu paree si loolu dañuy dem convention nationale loolu mooy suñu feuille de route ñun réew mi si loolu la ñu nekk léegi nag da président lum ñu sant mooy mbirum troisième mandat mbirum candidature ñun ñu bañ a jël suñu énergie suñuy euh, li ñu am ak suñu di si weranteeg yooyu te ñu jublu si liggéey bi nga xam ne sant na ko muy. fay yéen kay diisaay bañ leen xamee woon ngeen diisasul sax laaj bi sax mooy yéen lan ngeen lan ngeen yokkal ma ki kees gi nga xam ni yéen a ko moomoon euh, ñoom Babacar Diop ak si lay Diop. ñoo leen fa eh, jàpp ci élection yi ñaari élection yu weesu yëpp duma leen fa duma duma yu metti réew mi kay ma woon du mii fi mu toll nii. tontu bi mooy su réew mi nekkoon opposition ba tey ndax yaakaar nga ne benn bokk yaakaar dina am majorité assemblée nationale loolu mooy tontu bi mooy loolu. foo ko teg fan ngeen yaakaar ni fan ngeen dama la ko laaj suqalee bennoo yéen dama la ko laaj bu fekkoon ne réew mi mu ngi woon majorité ba léegi. xam nga loolu mënoo toog fii di ko di ko natt. non xam nga nuñ luñ koy nattee. mooy par année bi ñu campagneul muy 2012 nga xam ne place de l'indépendance la ñu toog campagne ñu at boobu am nañu mille voix. maanaam Sénégal am na fi deux mille personnes yoo xam ne Idrissa campagne ak bañ a campagne moom la ñuy voter kon xalaatal li Benno am bu ñu ci dindi woon c'est deux cent mille irréductible de Idrissa Seck nga xam ne ñoom soxlawul Idrissa di leen campagne bu ñu ko dindi woon dolli ko si opposition bi kon tey ji assemblée nationale bi nu muy demee ak maire yi nga xam ne am na maire yoo xam ne mun naa la citer maire yoo xam ne ñun yoo ko gagné te sax dañ ko dañ ko sauvé si Benno Bokk Yaakaar boo jëlee maire yi Lambaye euh, suñu list bu bu bokkuloon Benno Bokk Yaakaar moo ko jël soo jëlee maire yi Ngélu dëkk Farba Senghor suñu list bu bokkul woon Benno Bokk Yaakaar moo ko jël xaj na bu ko jëlul woon dafa maire boobu da doon dem si opposition bi soo jëlee mbeenu si simbalu braas yi fële sa Casamance. foofu tamit tuddoo fi benn dëkk bu mag. waaw mais xam nga dëkk yu mag yi fiñ ñu toll nii le phénomène soo seetloo électorat Sénégal di nga xam ne donne politique bi nu mu changé. mooy le phénomène des réseaux sociaux et que cette communication impacte sur le dans les grande villes donc loolu mooy tax pouvoir yi di perte les grandes villes te je pense que élection locale 2009 PDS pertroon na grande ville mu dalaat coalition Benno Bokk Yaakaar donc ça c'est un phénomène populaire mais pour te dire que réew mi implanté partout dans le Sénégal e que ñun li ñu indil Benno Bokk Yaakaar dans les dans les cinq cent cinquante sept communes du Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar yi ñu àndaloon xam nañu réew mi lan la indil président Macky Sall mi def tournée Sénégal wër Sénégal bi yëpp xam na dëkk bu nekk bu mu fa demee ndax fekk na fa réew mi wala fekk ko fa donc li ñu indi waa benn Bokk Yaakaar xam na ko je pense que duñ fi nekk di épiloguer si loolu. mais euh, restructuration massification bi nga xam ne yaa ngi koy wax loolu lañ ci jublu. recensement. recensement bi loolu lañ ci jublu mooy comme li Georges wax léegi ne réew mi peeseetul dara moo tax ñu ñuy ñuy peese suñu bopp. waaw mais kuy peese boppam ci euh, ci ab parti. Euh, objectif principal bi mooy jël réew mi. parti politique boo gis ñu créé objectif principal mooy jël réew loolu amul amul werante ñun ñun ñun vraiment yéen xamuñu lu ngeen bëgg quoi da ngeen di màtt di ëf di raam di pes kenn xamul li ngeen li ngeen di doxal fi mu toll li ngeen di carte ci politique ci langue politique yi la kenn xamul li ñuy carte leer na nañ Sénégal dañoo def quatorze mois de dialogue politique acteurs politiques yi dajoo dajaloo waxtaan mu am deux points de désaccord chef de l'opposition ak bulletin unique ñu jël lépp jébbal le président Macky Sall balaa mu koy muy décider Covid dal Sénégal président Idrissa Seck ne moom ay mbiru boppam léegi fii Sénégal tollu soxla du loolu mooy moo am njariñ pour Sénégal li am njariñ mooy lii muy di Covid bi nañu fexe ba jàkkaarlook moom dimbali si président Macky Sall pour que le Sénégal fasse euh, mun a gérer crise Covid bi yàlla may nañu si ndam si crise Covid boobu te boobu ba léegi si liggéey boobu guerre en Ukraine tegu si muy ñu war a nekk Sénégal nekk si ay jafe-jafe ñu war a lijjanti jafe-jafe wu Sénégal yi donc si loolu la ñu nekk réew mi moom si loolu la nekk réew mi nekkul dans la politique politicienne. Sénégal moo ñu soxla. mbiru liggéeyal Sénégal. mbiru boppam euh, gën euh, tax taxatu koo jóg kon xanaa. dafa génne ci dafa xanaa ci boppam. ne il faut président déedéet bu réew soxlaa yow yow nit ki da ngay nangoo ñàkk phrase euh, général de Gaulle bi. le destin d'un homme waaye lekkati lekkati kese neexul li béy de. suñu yéen a ngi noos. le destin d'un homme d'État. même d'État est d'une insignifiance devant le destin d'une nation. phrase boobu man du ma ko dégg si premier président Idrissa Seck en public en privé du benn du ñaar. donc daf ñuy xamal ne li li ëpp solo li moom xam nga daa mën daa mën a wax làmmiñ dee neex. mais yéen a ngi noos te xam naa tey bu ngeen désidé woon. tey bu ngeen décidé woon sax euh, jóge ci mag yi am na ci ñoo xam ne ñoom jàttal ñii ma gis nii xam naa ne ñoom bu ngeen bàyyi woon Macky ñoom ñu des ak Macky ñoom. suñu responsable politique yi responsable parti réew mi bay na seen nopp président Idrissa Seck wax na leen ay post taxul ñu dugg si pouvoir loolu pré wax na leen ko en privé ma toog fekkee ko suñu responsable. loolu moom mënu leen ko naxee kenn. non naxewuñ ko parce que suñ ko doon naxee dañ koy wax en public. mais li ma lay wax en privé la suñuy responsable mu président xamal na leen loolu que di poste taxul ñu dugg tey suñu suñu ministre yi nga xam ne ñu ngi si biir gouvernement bi nekk si gouvernement ak ñàkk si nekk la ñu yemale bu leen fàtte ni réew mi 2005 lañ ko créé M6 bu leen fàtte ni ñun Benno Bokk Yaakaar la ñu bokkoon ñun ñoo fal Macky Sall si fal la ñu bokk. bu leen fàtte ne un an la ñu def TFM bii la président Idriss Seck ñëwoon seen groupe GFM bi mu gisee ne yoon bu ñu jël wax baaxul mun ne leen baral leen jéego yi si bëggu bëggu askan yi moom ñu teg si ay weer ñu banquier yi yow mu waxoon nañ leen fi jëlee Macky Sall leen fi indi Mimi bi mu ñëwee accélérer la cadence la wax maanaam li Idrissa waxoon quelques mois avant baral leen jéego yi si bëgg-bëggu askan wi Mimi bi mu ñëwee moom la traduire en français wax accélérer la cadence donc 2013 ñun ñoo génn ci gouvernement bi kenn dàquñu ñun ñoo parti réew mi moo génn benn mbokk donc ñun suñu trajectoire du ay post ñun bi ñu dalee. waaye jamono jooju ñaari ministre ngeen amoon ci gouvernement bi ñoom génn génnuñu. waaw mais Omar Gueye ak euh, Pape Diouf. mais xam nga loolu nit ki la mais parti bi moom. trajectoire am ay poste ay privilège taxuñoo jóg parce que bu doon loolu la du ñu yàgg ci opposition bi fii amul kenn ku ñu gën a yàgg ci opposition bi Idrissa amul benn politicien sénégalais bu ko gën a yàgg ci opposition quand il a fait ans de de vie politique juróomi at nga si nekk pouvoir 35 ans yëpp yaa ngi si wetu askan wi si opposition bi je pense que kooku kenn du ko waxal ay pouvoir ay privilèges ak yooyu parce que ba muy dugg si politique homme d'affaires la woon te Idrissa Seck li ko dugal si politique. li gën a tax mu engagé aussi mooy benn marché bu mu gagné woon ak cabinet am muy le riz PL 480 bu USAID mu nekk ay milliards ñu bloqué ko ndax ay affaire politique loolu moo ko dugal si politique. mais njum njumte mais sa sa mais sa trajectoire n'était pas politique. sec trajectoire est-ce que njuumteem yi est-ce que njuumteem yi bëriwuñ 2007 euh, mu mu mu nekkoon candidat euh, jour ba muy jour bañ koy déposé la euh, candidature mu conseil conseil mu dem dajeek Ablaye Wade bii pa newoon na gis-gisu Macky Sall jam ñaajo gii la yem dem fekki ko après. démb mu ni gis-gisu Macky Sall weesu na jëm. waaw xam nga. sooy nekk si waxoon ni Macky du ma du ma yilif. soo ngay nekk Macky Sall tabb ko conseil économique. soo soo nekk si si si arène politique bi da ngay challenger di opposition di challenger pouvoir pour que pouvoir li muy def mu gën si góorgóorlu. je pense que ba mu koy wax jam ñaaju boobu jam ñaaju moo nekkoon au centre des projets. idi daal vraiment waaw may ma rek Babacar boo waxee quand même da nga may bàyyi ma ma tontu. Euh, euh, donc 30 secondes mun dese. ah déet munoo wax ba pare ne ma 30 <laughs> secondes. donc su ñu demee tey ba Macky Sall jëlee autoroute bi benn exemple jam ñaaju yóbbu ko Ila Touba di yóbbu ko Ila Medina Baye muy autoroute bi jëm Kaolack di ko yóbbu Ila Tivaouane nga xam ne fan yi dañ koy. dañ koy lancer travaux yi je pense que ak loo ko bañ bañ war nga ko nangul ne mhm. kat vraiment gis-gisam weesu na fañ ko doon xaar réew mi nag ay artistes ngeen dëgg <laughs> jërëjëf ah, Matar Seye jërëjëf secrétaire général réew mi bu Idrissa Seck jërëjëf Georges maa ngi lay sant bu baax jërëjëf Faty yendu ak jàmm Babacar Fall ñu sant ko bu baax gërëm ko naka noonu suñu naataango yu rajo Futur euh, Média ak suñuy téléspectateur moo xam yandoon ak ñun 6h30 moo xam yi ñuy soog a dab dal leen jàmm lu ci mën a am ñaareelu pàcc Infos Matin door na xibaar yi euh, lañu koy tàmbalee ak Serigne Cheikh.